jahanama mangani bela montega tela yaw bu yaw maytul kañirate tela yaw baal kokoɗi des nara jaw wurin sa xol bi ngala yaw te def ci lamp ndax nga raw bu jubuteeni moola dam maami sëñ sax jafa faal ku jubuteeni moola dam maam yaayi dameeni too mu tëj fa lépp wanu gën te ci yoon bi taxaw dégg bu kër ngir ma ne yow sa doom dale te moom def lu jëlee yow maa jëlee walaw waa jëlee yaa ngi say amoo waa jëlee waa jëlee waa jëlee waa jëlee waa jëlee yow de amoo léegi bu dee gën a woon. waa jëlee. الله الرحمن الرحيم ومن بها دخل في أمر فلا يكون خائبا ولا منفصلا نصرتني فإنك النشير محات أيبي إنك البشير ثم الصلاة على المختار من مدر خير البرية من باك ومبتسم للمصطفى kulliyati kulla sana mathan salatan wa hababil hasana ya rabbana habli bi haqqil kawsari yumnal hayati wa ujuri kasiri amin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa kilifa yi fi teew bokki taalibe yi góor sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mii kilifa jataay bi mooy nuyu njabootu Cheikh Mouhamadul Fadel gi fi nekk tàmbalee ko ci sëriñ Abo Baraka ak ay rakkam ak doomam ak njaboot gi nuyoo boobu nag mu ànd ak ay rakkam ak doomam yi mu bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall ak seex yi ak magi taalibe yi góor ak jigéen mag ak ndaw waaye jële ko ci sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa général Baye Fall yéen fi yàgg te andi ko wér sëñ Cheikh Ndiaye Mbengit di wax sëñ aboo ni ko na ko jottalil nuyoo sëñ Cheikh Jëmb Fall ci muy nuyoo ba ànd ko cant ak ñaan di ñaan mu yàgg ànd ko wér jotaay bi de moom ni mu war a mel mel nañu daa mel ni mat na ndax wow du weesu koŋ kii borom jotaay bi di Sëriñ Fallu benn baat rek fi mu jaare kii fi nekk tey di Sëriñ Siir Jëmb Fall mi nga xamante ni muy xalifa généralu Baay Fall tey jiite gi mu jiitu njaboot gi mu jiite njabootu maam si Ibrahima Fall gi du asar ndax diggante Sëriñ Fallu ak saa maam si Ibrahima Fall moom du lu mu gonte lu mu xëye la ndax bokk na ca xëyee ga bi saa borom jobi dogalee Cheikh Mamadou Fadel ñëw jamono te ku baax ki wax mag ñi ni leen dem leen nemmi ko ji bi ñu ñëwee kenn ku nekk la nga def mooy ñaan li fi xewan ñaanal ko saa maam si Ibrahima Fall rek moo ñëw sukk raam génnib junni nëbal ko dénk ko boppam ci yara Fall rek ni ko liir bi moo fàtte waaye ba mu génnee la ma ca teg nag moo rëy ba mu génnee dafa defal si moo defal déclaration ni xeexee eh, eh, doom liir bi dina toog bay atte jamono booba si yara Fall rek a xam loolu atte googee ba mu demee ba Cheikh Mamadou Fadel nekk fi ak magam ju baax ji ak wëjjurum bu baax li borom Tuubaa Xaadimu Ibrahima Fall def ab lël ca xuru Mbakke xarfal fa junniy dongo yàlla daf am ndog am ca am ñu wàccub liggéey Sëriñ Fall war aw fasam ñëw di seet si ku baax ki di maam Ibrahima Fall ba mu jubee tund wa rek la ne ma àll bi doom xetu sëñ Bàmba ngi may xeeñ ñu ñëw ni ko sëriñ Falloo de mu ne eh, xeexee eh, doom muy sëñ Bàmba de ba sëñ Fall ne jëpp maam si Ibrahima Fall dafa jël ab këll dëpp ko ca fa mu jëkk wàcc ci ay tànkam ne ko Mamadu Fallilu mu ne ko Mbàkke mu ne ko def nga lu ko jar doom waaye nag dinaa la neexal li ma lay neexale mooy dinga nga toog di nga jekk ba toog ci lalu sëñ bamba bii doom di sëñ bamba di atte jamono la ma cay tofal suñu demee ba sëñ bamba nekkatu fi doomi sëñ bamba nekkatu fi nekkatuma fi sama doom nekkatu fi kii jëkk a toog ci bi yaa koy jur Cheikh Fall dama wax mooy Cheikh Mamadou Amine Baara loolee sëñ Fall lu bokk na ca fay na ca fi ma ciy daane ci sëñ Cheikh Jëmb Fall nii ci li féegee sëriñ Fallu taxawal liggéey jumaa ji liggéey ñeenti sooroor yi ba mu yegg mooy ñaari sooroor yi féete saw ak ñaari sooroor yi féete penko sooroor bii ñu tudda Lamp Fall bokk woon ci palaab jumaa yi Tuubaa barab bi mu nekkan tubaab yi dañu noonu nañu ko fi bàyyi jumaa ji di ko noyyee bi ñeenti sooroor yi yeggee ba noppi Cheikh Mamadou Fadel fay gi mu bëgg a fay maam si Ibrahima Fall ak njukkal gi mu njukkal maam si Ibrahima Fall ak cër bi ngeen di ko jox tey sëñ moomu fan la ko jëkk a jox Seera Fall woo entrepreneur bi ne ko dama bëgg bàyyaalu jumaa ji ci biir ku ma ci defal ab sooroor boo xamante ni ñaar fukki mètre lay dugg ci suuf fi ne sooroor bi vingt mètres la ci suuf juróom ñetti fukk lay taxaw ci kaw ba ñu defee ba ñu rëddee kuréel bi def li li ñu ko war a financé dañu ne sooroor bi li muy jël ci alal mu biir bi jumaa ji jëriñoo tolloo entrepreneur bi loolu ba mu ko defee di dañ ma pénaliser kon nag ma porte plainte ndax bokk ci plan jumaa ji suñ fal ni ko waaw waaw kaay yéen ay ahlul kitaab génn ni ko ndax makkaama Ibrahima bokk na ca plan Kaaba ga ñu ni ko déedéet bokku ci mu ni mu ngoo nag xam nga Ibrahima bokk ca palaab Kaaba ga sóoróor bii bokk ci palaab jumaa jii nag xam nga Ibrahima dañ ko faa def ngir darajaale ko Seydina Ibrahima sóoróor bii daa ko fii bëgg a def ngir darajaale ko Cheikh Fall daal di wax sëñ Modou Moustapha Fall boobu muy xalifa général Baye Fall tubaab bi ko léegi nag lii tax soore du mën a am dañuy boole liggéey guddi ak bëccëg mu ni ko wutal ma jëwriñ joo xamante ni day jiite liggéey guddi bi jiite liggéey bëccëg bi du noppalu sëñ Modou Moustapha Fall tànn sëñ Cheikh Jëmb Fall mii ak sëñ Cheikh Fall Khady Gueye ñuy jëwriñ mbooleem daaray maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñu nekk fii jiiti ko guddi ak bëccëg sëñ Cheikh Jëmb Fall mii wéradiwul daa liggéeyal maamam ci kër borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ba jeex kon lii du asar ci moom ba sooroor ba yeggee na Cheikh Mamadou Fadel toog ndindi su timis mu saa jot lamp Fall day tàkk dana tay fekk Cheikh Mamadou Fadel toog jàkkaarloo lamp bi timis jot lamp bi tàkk mu ni bërit ne ko saa ni ko rusloowuma la rusloowuma la rusloowuma la fekk borom Tuubaa moo ko waxal moom sëñ Mamadou Moussa Mbacke magam ju baax ja ni Moustapha yàgg fallu rek bu leen ma rusloo ndax liggéey gii saa borom nangol na ma ko te bu ngeen ko deful dina am bi ñëf yu ko wàcc def ko ba mu yegg te yéene naa leen ko moo rusloowuma la kon nag moo waral dundi ba commencé Ibrahima Fall ngëbalan boobee mu ni nañu nañu nemmi ko liir bi dundi boobee la sëñ fallu ni sooroor bii ku xam aw ma jox la junni bii bi ko kenn xamul wala delluwaat lu ci nakkan la mu ni kon julli delluwaat ci sa poos na ko Cheikh Fall joxoon kon moo ko moom moom ko mu Cheikh Fall kon njoobatug Cheikh Fall gi ñu ngi sant ñu ngi nuyoo nag ñu ngi gërëm la ci mujj mooy mujjug maam si gën a fa Sëñ Fallu rek ndax keneen ba nga xamante ni saa maam Cheikh Ibrahima Fall wàcc na ab liggéey ñetti fan tam xarit ci kanamu Cheikh Mamadou Bachir Serigne Bachir Mbacke moo defar maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu yàgg mu dem ba ko Cheikh Modou Moussa Mbacke alayhi salaatu wasalaam sëñ Modou Moustapha ne ko yóbbul ma ko Touba sëñ Bachirou yàlla na ko yàlla fayal moo indi ko baax tooba Touba moo indi maam Cheikh Ibrahima Fall Touba. ci ndigalu Cheikh Mamadou Moustapha ne ko boo demee na nga ko fanaanal kër sëñ Fallou kër sëñ la maam Cheikh Fall loolu yi maa toog soxna Kunta Mbàkkim Sëñ Fàllu toog soxna su ku baax ci yorom toog yaay astu daana boot soxna Kunta ne ko keroog bis maam Cheikh Ibra Fall ñëwee keroog njëlul si njëlul si fallu li maa ko togg maa togg añ togg reer dënale coono bi jàpp ma ma nelaw asamaan set ma ni naa génn ci ginnaaw kër gi dama ci poften mi matt mu ma tàngale kafe nee fi ma romb maam seen Fall ñu mur ko ak mbalaa mbàjjum leen nee mu tiit ñëw ci yaay sunu kunta Mbàkke yaay njaay ni ko man damaa tiit mu ne ko lu mu doon mu ne dama loolu damay génn ci ginnaaw kër gi dama ci posté ni man ta muñ tàngale kafe waaye ma gis lu ñu sàng ak mbàjjum leen mu ne ko santal yàlla samaam seen Fall lañ sikundi bii sëñ Fallu moomee nga xam te ni ak njaay biiram lépp Cheikh Ibrahima mu jub maam Cheikh Ibrahima Fall bi lépp sëñ Fallu ci loxoom lañ ko teg mu fanaanoo ko ba asamaam set mu jëbbal ko sëñ sëriñ bii mi ngi sant sëriñ baa ngi nuyoo sëriñ baa ngi gërëm sëriñ baa ngi ñaan ak mboolem jobootu maam si Fall gépp nag fukki bëtti maam kër maam seen Fall yëpp teew nañu kër maam si Aliou Fall Daaru Xafoor teew nañu cheikh maam si Ibra Fall yëpp teew nañu magi taaliba yëpp teew nañu mais ñu ngi ñaan ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamante ni mooy maam si Ëbbo Mbàkke sëñ Ëbbo Mbàkke daal ku fi mos a toogal suñ fallu yàlla na si toglu ko ëpp te ànd ko wér li suñ fallu bëgg ci moom yàlla na ko am li mu bëgg ci suñ fallu yéen ko suñ fallu am ridaan wa rahmatan min allahi badi xëyri min ad dunya wa ma fi ajamin amin wa rahmatullahi wa loolu doy gaaw. mu ne ci ndigalal ak Cheikh Abdou Baraka. dindil yëpp rek. ak ci ndigalal ay jëwriñam di Cheikh Mamadou Bachir ak Cheikh Abdoul Fattah mi nga xam ne Cheikh Abdoul Fattah ak Cheikh Abdoul Fattah yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen sant yéen ñi waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci kilifteefu nag Cheikh Mamadou Moustapha suñu woo nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax di ko sant kilifaam sëriñ Cheikh Jëmb Fall yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral mu jël délégation bu am solo boo xam ne boo leen kër yi maam yëpp jël na ca yabal leen fii ci ci ci mbooloo mi te sëriñ Cheikh Ndiaye Mbengue jiite ko te sëriñ Cheikh Ndiaye Mbengue jiite ko mu ne sëriñ bi ne euh, suñu xabaar ne sëriñ bi xolam seet na bu baax a baax. guddi gi nga xam ne sëti sëti euh, Cheikh Mouhamadou Fadal yi. ndax nee na guddi gi nga xam ne sëti Cheikh Mouhamadou Fadal yi. dañ ko ànd ak seen wayjur. dañ ko ànd ak seen i wayjur. muy sëñ Ahmad Badawi ak ñi ak mboolem ñu bokkal. saa mu nekk Cheikh Ahmad Badawi ak mboolem ñu bokkal Cheikh Mouhamadou Fadal. sëñ bi wax ni ñu tànn ko tànn tànn ko tuddee ko Cheikh Ibrahima Fall. sëriñ bi sëñ Abo joxe ndigal ne nañ ko tuddee ren conférence bi Cheikh Ibrahima Fall. loolu am am na ci am mbégte bu yaatu yaatu. nee loolu am na ci mbégte mu yaatu. nga xam ne loolu mbégum Cheikh Mouhamadou Fadal la. ndax nee na it xam na ne loolu la. xam tam li xam tam woy juróom. na dana taxit ñu xam li Cheikh Mouhamadou Fadal la. ndax daanaa wax naan ak taalibe Cheikh Ibrahima Fall euh, dong laa ci ñëwee. ndax nee na Cheikh Mouhamadou bi kat Cheikh rek laa ci ñëwee. sëñ bi wax ne ñi ngeen teewee tey jii sëriñ bi wax na ne nii ngeen teewee tey jii. Eh, yeesal yeesal yeesalaat yoon wi la. yeesalaat ak yeesal la ci yoon wi. ndax eh, xel yëpp demaat na ci Cheikh Ibrahima Fall. ndax nee na xel yëpp delluwaat na ci Cheikh Ibrahima. ndax Cheikh Ibrahima Fall mooy mbokkum yoon wi. ndax nee na Cheikh Ibrahima mooy mbokkum yoon wi. ndax képp ku jëriñu ci yoon wi rek. nee képp ku jëriñu ci yoon wi. da ngaa jël melokaanu Cheikh Ibrahima. da ngaa jël melokaanu Cheikh Ibrahima. jël jëf Cheikh Ibrahima. jërëjëf Cheikh Ibrahima. kon kon loolu moo tax bi bi bi lii amee tey jii. kon loolu moo tax bi lii amee tey jii. bis bii day bis bu rëy ci moom. nee na bis bi ndax bis bi day bis bu rëy ci moom. bis boo xam ne mënut misaal ni mu demee sax. bis boo xam ne rëyaay bi sax mënul ko misaal ni mu demee. ndax ndax lépp njëriñ adduna ak di ci nekk. ndax nee na ndax bis bi kat lépp liy njëriñ adduna ak alaaxira mi ngi ci bis bi. kon nag demee ci sëriñ bi. mu ne kon bu ngeen demee ci sëriñ bi. njaboot gi. ak gi. ñi ci gannaawam muy wala mi ngi ci ginnaawam. di ay xulafaa. di ay xulafaa. sëñ ngi sëñ Ba sant bu baax. di yeesal di di yeesal bu seen diggante. mbokk gi ak taalibe gi. muy mbokk gi ak taalibe gi. di di leen Cheikh Ibrahima di leen ñaan di ñaan itam di leen bi. muy bi. ak taalibe gu rafet. ak taalibe gu rafet. la ci ci daara yi. xam ne daara la ci daara yi. di sëñ bi nee na yàlla na ko suñu borom wóyal ci yéen ba faw sëriñ bi nee na loolu yàlla na ko yàlla wéyal ci yéen ba faaw. te li dafa barke. te dolli barke bi. ak taalib yi ngeen àndal yëpp. te def ko ci taalib yi ngeen àndal yëpp. doxin bi tey rafet na lool. nee na doxin bi rafet na lool gaa macha allah. jotaay bi jàng am am jàngalewaat la. nee na bi itam am njàng ni ci moo xam ne man sa ko cay jëlee. bokkal Cheikh Mouhamed Fadal. nee na moom Cheikh Cheikh mu bokkal Cheikh Mouhamed Fadal. mi sant bu baax a baax. mi ngi leen di xam doom rakk la moo xam doom la. moo xam rakk la moo teew nañu. ndax na ñëpp teew nañu. ku fi teew sa njaboot teew xam nañ gan gi ñu am. ndax nee na xam nañ gan gii ñu am. Euh, na mi ngi leen di ñaanal. ba tax na bu baax. suñu borom taxawu te sàmm nu. te sàmm ñu. jox ñu njëriñu yoonu murit jox ñu njëriñu yoonu murit yàggal na ci yàggal na ci te ñu bokk ci ñi sëñ Tuubaa liggéeyloo te ñu bokk ci ñi te te liggéey bu doon liggéey bu ñu nangu te liggéey bi itam mu nekk liggéey bu ñu nangu eh, dafa xaw guddi sax moo tax mun sëñ bi ne daa xaw guddi sax mu bëggoon kon kilifa yi bu ñu jógee mu bëggoon bu kilifa jógee ñun taalibe yi ñun taalibe yi ñu des fi ci ci àggale waxtaan bi tuuti rek ñu desante fi àggale waxtaan bi tuuti rek fii ci kër Sëriñ Tuubaa kër gu mag gi su ko defee kilifa yi dugg ci fii ci kër Cheikhul Khadim bi muy kër mag moom gi jël ci ngërëmi Sëriñ Sëriñ Tuubaa ne foofu jël ci ngërëmi Sëriñ Tuubaa yi ne foofu yi soog soog a dem soog a soog a dem soog dem jërëjëf nag ndax dañuy wéyal waxtaan bi waaw sëriñ bi nee na bu kenn lu kilifa yi rek kilifa yi lañu bëgg a yeewee dañuy wéyal waxtaan bi insha Allah waaye nag euh, bu ñu génnee fii fii ñu toog

dañuy dox saa bi ñu may jógee bu ñu àggee ba ba noppi ñu soog a ñëw